wax nag li ngeen wax yëpp dégg naa ko ci doléance yi monsieur le maire fana énuméré na ko léegi tax na mémorandum bi euh, lépp lu ci mën rek yaakaar naa dinañ ci def parce que fii sama dëkk la waaye président tamit bàyyi na leen xel bu baax xam na ne fii département de Mbacké particulièrement le monde rural dañu ànd ak moom di ko jàppale am taxawaay bu baax a baax a baax waaye nag daan déglu suuf fàttewuñu leen ci benn yoon wax naa ko démb ne fii bi ma ñëwee ministère de la am jigéen ñi laa njëkk dalal waa département de Mbacké avec ko dinaa indi financement en 2018 ñëw naa fii département Mbacké indi fi ay financement financement yooyu yaakaar naa ne bu ñoo def te évaluation bi xam naa peut-être bu monde rural moom am na taxawaay bon sa département Mbacké jigéen ñi nag fay ñu seen ay financement ma yaakaar ne comme ni ko waxee léegi monsieur le maire l'a souligné am na ci commune yoo xam ne amuñu waaye tey bu fekkee ne woon na waroon demee demee na ko waxuma commune yooyu sax a financer waaye kon loolu li nga rappelé ni parce que lu am solo la tey ma ñëwaat fi encore indiwaat beneen forme de financement boo xam nak nag phase pilote la ñu fas yéene nag jàpp ci pour mu dem Sénégal yëpp au niveau national tous les départements et toutes les communes ñu fexe ba fekk fa jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey nekk ay femmes entrepreneurs nekk amee initiative di liggéey di sonna yàlla jaar nak Covid 19 bi nga xamné suñu borom moo ko indi mu jaar fi présent nak ci ba taxawaayam ci réew mi ak gëm Sénégal ak nangoo liggéey di wax tuuti jëf lu bari kooku mooy président Macky Sall ci réewum Sénégal li muy nak ñu xamné nit ñi ñoo nekk au cœur parce que bo jappalé askan wi rek réew mi jëm kanam le Sénégal ne pas être un pays émergent sans les sans les familles sans les femmes nit ñi ñoo nekk ci digg bi ñoy góor ñi ñooy jigéen ñooy xale yi ñooñu ñoo ko ñor président Macky Sall te loolee nekk bu dégg ba ci dox suba bangor fu jafé jafé né Sénégal rek bëgg na nit ñi dem fa séti leen accompagner leen jappalé leen ci mbass bi nak yalla dogal na mu taxawaay taxaw bu reuy Sénégal ñëpp nañ ko ci mais aussi ñi bitim réew te mu ñaw ci mu jappalé Sénégal yi ne ci biir ak ñi ci biti nee naa leen solo moy amul sénégalais bo xamné ne fi mu nekk nga Sénégal mbas mi jaaree te président exiwul ci yow ne la salaamaaleykum maa dimbalee lii ñu jëm ci aide alimentaire d'urgence 69 milliards de francs CFA le dougal ci réew mi famille bu nek nga xamné 1 million 100 000 familles 10 millions de personnes nga xamné ne ñooñu ñoo jot tey aide alimentaire d'urgence nga xam ne nañ ko coow lu bari bari ak wax ji mu bari nit ñi bu ñu jotee seen kit alimenté xam ne nga ci dimbal nañ leen parce que mayenté wuñ leen jappalenté wuñ leen dañ leen defal lu reuy lo xamni ne kenn suñu ko defal Sénégal ya dogal nak li ci ëpp solo moy la crise sanitaire parce que bala nga naam dang fay nekk nit ñi dañu wara faju dañu wara wër bu maladie amé ci réew defe jigéen ñi ñoo impacté en première bi parce que ñom ñoo nekk en première ñoo nekk au cœur des familles

lu am solo la ci réew parce que nak feebar mom baaxul ci am réew dugg ci aduna bi waaye ñun tamit nak cette résilience là sanitaire elle est importante pour nous parce que duñu réew bu am doole dañu nekk sur la voie du développement et de l'émergence kon nañu fexé ba vraiment feebar bobu ñu fexé ba vraiment endiguer ko rap très rapidement dans notre pays kon ma ci ciy interpellé jigéen ñi bu relâchement bi am ñu delluwaat ginnaaw ginnaw naa mbàkke mom machallah waye nak li gëna a baax mooy fexe leen ba ku ñëw sa kër dal so amé sa doom mu ñëw wala sa jëkkër ñëw

képp koo xam ne jàppale nañ la suñ jàppale sa morom xamal ne yëf daan dañu suuf parce que munoo ñëw dans un département ñëpp nga dimbali leen tànn nag bu jugee quand il faut choisir dafa am ñuy choisir bàyyi ñeneen ñi ñun jigéen ñi suñu suñu suñu suñu suñu suñu emblème c'est-à-dire suñu taxawaay moo ñu jàppalante solidaire loolu loolu ñu xamee Sénégal man jaar naa ci département yëpp waaye benn département fekkuma fa ay wax fekkuma fa ay coow damaa fekk ñëpp ànd nekk benn jàppalante parce que loolu mooy suñu suñu suñu identité ñu jigéen ñi sa borom jigéen bu amee soo amul tey di nga am ëllëg mais dama war am tey par force parce que maa mel nii maa taxaw nii maa mel ni loo def sa morom def na ko loo mën na ko man nag coo taxumaa jug damaa ñëw pour liggéey ñëw ma pour politique dama indi si une activité républicaine ñëw ko fekk fi jigéen ñi jàppale leen seet leen te c'est ma ñëw fi te mën nañu ba nga choisir département de Mbacké parce que am na yeneen département yu fi nekk mais bu ñu leen choisir cër bi leen président jox xam seen taxawaay xam ni ngeen doon xam yéenee kan moo tax indi leen xaas boobu jox leen 80 millions de francs CFA financé leen ko femme bu nekk am 500000 250000 dañ leen koo may musul am beneen 250000 lebal leen ko ne leen fayale ko différé 3 mois loolu la président xam jafe-jafe yi comprendre seen ay jàqare ak seen difficulté def naa loolu woowu ànd ak coow maa ngi ñaax sa moroom jigéen bu baax ñu liggéey ñu jàppalante ñu dal parce que lépp incha allah bu yàlla dimbalee la vision de son excellence président Macky Sall de faire du Sénégal un pays émergent jigéen ñi noonu nekk au cœur waaye nag loolu ci xol yi ak ci comportement yi la ak disponibilité ak vraiment ouverture d'esprit ak générosité xam ne lépp ñun ñoo ko bokk ñoo bokk Sénégal yéen a bokk lépp bokk ndey bokk bàyyi ñu jàppalante liggéey ngir yàlla yàlla tax parce que coow moom du faj dara te man ku may xoxotal defe naa danga donc nañ jàpp bokk ndey bokk bay liggéey di nuyu en passant madame la coordonnatrice du SEDAF de Mbacké ma sœur Mariama Ndiaye di ko félicité ci liggéeyam institution yi ñu loola loola